asalaamaaleykum man la seen professeur anonyme ci seen chaîne lycée virtuel des SVT ba léegi ñoo ngi ci mouvement involontaire ko réflexe nañu gis grande étude des réflexes innés ci xaaju leçon bi ñeenti compétence maanaam ñeenti mën-mën dañuy xaar ci yow bu njëkk bi mooy réaliser maanaam nga mën a def ay expérience yoo xam ne moom lañuy def ci laboratoire ngir fësal réflexe inné yi ñaareel bi mooy s'informer maanaam nga xool ay document mu nekk ay nataal wala ay résultat d'expérience yoo xam ne danga cay seppi information yi jëm ci réflexe inné beneen bi mooy raisonner maanaam nga lëkkale information yi ngir mën a leeral wala faram-fàcce dara bu mujjee bi mooy communiquer maanaam def ay schéma yu jëm ci réflexe inné yi li ñuy njëkkee nag mooy mise en évidence d'un réflexe inné li ñuy xaar ci yow mooy nga xool benn expérience daal di ci seppi ay information daal di ko boole ngir wone ne réflexe inné lu am la dinaa la jox benn vidéo ak itam benn document boo xam ne dafay joxe ay résultat expérience yu méngoo ak vidéo bi nga jëlee ci information yi nag ngir mun na wane ne réflexe inné lu am la kon vidéo baa ngi nii fii yaa ngi gis ne kiy def expérience bi mu ngi jël benn puso jam ko ci ginnaaw bopp mbott bi ba pare di ko yëngal ci biir ngir mën a yàq li nga xamante ne moom mooy yuur gi ba ci pare soo gisee mu teg mbott bi mbott baa ngi ne las yënga tuutu ba ko yëngatee itam yënga tuutu mu jël acide daal di ko li nga xam ne moom mooy tànk bi nga gis fii nu mu jëfee acide boobu mu jël nag da koy essayer ak ay concentration yu wuute day jël concentration yu ndaw di gën a yokk concentration bi loolu moo tax ci nataal bi nga gis ci kaw zéro maanaam lu amul acide waaye lu muy gën a dem di yokk concentration acide bi moo tax ngay gis plus yi di yokk ci kaw ci suuf yaa ngi gis ñoo ngi bind C1 C0 C1 C2 C3 C4 ak C5 bu ci nekk nag da nga gis réaction yi nga xamante ne moom mooy mbott bi kon yan information nga mën a jëlee ci vidéo bi ak document bi bu njëkk mooy ne dañoo yàq li nga xam ne moom mooy encéphalu mbott bi te biñ ko defee mbott bi dafa ne las mënatul yëngu waaye ba ñu jëlee li nga xamante ne moom mooy acide laal ko ci tànk bi gis nañ ne lem na tànk bi kon mën naa yëngu ci dund bi xam nañ ne lépp lu ñu defal suñu bopp lu ñu xamal suñu bopp moo ngi aju ci ni suñu yuur di doxe moo tax nit buy def na ko sudul noonu wala nit bu dof dañu naan bopp bi neexul lu càggan ne mënul def dara waaye li muy def dafay niroo loo xamante ne defalu ko boppam wala boog mënalu ko boppam wala boog teyu ko mel ni bébé buy door juddu te ni muy def teyu ko loolu moo tax bépp jëf boo xamante ne jëmm def na ko te ajowul ci yuur gi encéphale bi wala boog plus précisément cerveau bi dañuy jàpp ne jëf jooju daf ko judduwaale ndaxte lépp loo xamante ne yaa ngi ko def danga koo jàng ci sa dund ci bi ngay màgg loolu moo tax jëf yooyu ñu leen di wax réflexe inné loolu moo tax ba ñu yàkkee yuuru mbott bi mënatul defal dara boppam moo tax mu ne las biñ ko dippee mu ne las biñ ko dëppee itam def na ay mouvement wër ko waaye mbott bi bougé kon mën nañu jàpp ne jëf ci nga xam ne moom la mbott bi def bu ñu laalalee tànkam acide bi réflexe inné la ndaxte li nga xam ne moom mooy yuur gi nekkatu fi yàq nañ ko xamatul dara boppam kon lu mu def rekk réflexe inné la mën nañu jàpp ne dafa mel ni jëf joo xamante ne man mën boo xamante ne daf koo judduwaale ndaxte mënoon na ko fekk sax yuur gi màggagul waaye itam am na leneen luñ ciy dolli jàngee mooy ne loo gën a yokk concentration acide bi da ngay gis ne ni nga xam ne noonu la mbott bi di réagir dafay gën a am doole gën a yaatu ci yaram wi loolu dafay tekki ne kon ca catu tànk ba nga xamante ne foofu la ñu def facette bi foofu la def excitation bi dafa am ay récepteur sensoriel yoo xam ne ñoom ñooy yëg cafaayu acide bi ba loolu tax na lu cafaay bi gën a saf wala gën a yokk ñoom itam ñuy gën a def ba tontu bi gën a am doole wala gën a yaatu waaye gis nañ ne bu mu amul cafaay maanaam bu mu nekkee ci zéro amul benn tontu loolu muy tekki dafay tekki ne récepteur yooyu dañuy tontu ci benn intensité sëy loolu li ñu fàttali lu ñu gisoon ci excitabilité kon dafa am benn réobase boo xamante ne su fa cafaay tollee ci lay déclenché tontu te lu cafaay bi gën a yokk doole ak yaatuwaayu tontu bi itam di gëna a yokk mbott bu ñu yàq yuur gi nag ñoo ngi koy woowee grenouille décérébrée kon mbott boobu mois épinière bi rek moo ko dese loolu moo tax tamit ñu koy woowee itam grenouille spinale kon lan mooy xew su dee dañoo dolli yàq li nga xamante ne moom mooy moelle épinière bi maanaam doon ñuy décérébré ba pare ñu yàq moelle épinière bi loolu la ñuy woowee grenouille décérébrée et démédulée ndaxte démédulée mooy yàq moelle épinière bi su ñu defee noonu grenouille bi dafa naan las. te bu boobaa ak foo mënti excité du am benn yëngu-yëngu kon ci tënk réflexe inné dafa di mouvement involontaire boo xam ne ajuwul ci yuur bi maanaam ajuwul ci cerveau bi soxlawul cerveau bi ngir mu am waaye dafa di mouvement boo xam ne nag dina soxla présence morale bi mouvement réflexe inné kon mooy réflexe boo xam ne duñ ko judduwaale soxlawul cerveau bi ngir mu mën a am léegi nag nañu seet yan ñooy cër yi nga xam ne ñoom ñooy doxal réflexe inné ngir loolu dinañu def ay expérience daal di seppi information yi nga xamante ne moo nekk ci inform ci expérience yi loolu nga war a def ba pare nga lëkkale information yooyu ngir mën a xàmmee cër yi nga xam ne ñoom ñoo laale ci réflexe inné ba pare ci raisonnement boobu nga daal di def benn communication maanaam def benn schéma boo xamante ne dafay wone naka la réflexe inné di doxe kon expérience yaa ngi nii jéema la seppi information yi ba pare lëkkale leen ci benn raisonnement ngir wax cër yi nga xam ne ñoom ñooy tax réflexe di am kon yan information nga waroon jëlee ci expérience yooyu ci expérience bu njëkk ba dañoo jël benn substance bu ñuy woowee éther daal di ko takkal ci deru benn tànk bi éther nag dafa nekk benn substance bu ñuy wax anesthésiante maanaam day duggu der bi bu nga xamante ne der bi du am benn yéeg yéeg dañ ko defee tànk ba nga xamante ne moom lañu diw éther suñ ko laalalee acide bi du tëb du lem waaye beneen tànk bi nga xam ne kenn diwu ci éther suñu laalee acide bi rek day tëb kon loolu muy benn information buy wane ne kon ca der ba am na loo xamante ne moom mooy yëg li nga xam ne moom mooy acide bi xam nga sànq waxoon nañ ko ba ñu waxee mbirum réew base bi ak acide bi kon ci der bi am na loo xam ne moom mooy yëg tafaay acide bi loolu soo ko nelawalee wala soo ko éliminer ak éter jeex na réflexe du am yeneen expérience yi ñaa ngi gis ne bu njëkk bi mooy expérience bi nga xam ne moom lañ defoon ak éther bi ñu ngi ko gisee éther bi su laalee der bi foofe nga xam ne foofu la laal soo fa defee acide doo am benn réaction yeneen ñett expérience yi nga xam ne ñoom ñoo ci topp ñoo ngi am fekk ñu dagg neer bi nga xam ne moom moo jaar ci biir tànk bi moom la ñuy woowee neex sciatique ñu dagg nag bi nga xam ne moom moo jaar ci tànk gauche bi bu ñu defee loolu ñu laalal tànk gauche bi acide tànk bi nga xamante ne moom la ñu dagg neer sciatique bi du am reflex waaye suñu laalalee beneen tànk bi nga xamante ne moom mooy tànk droite bi acide bi tànk boobu day lemu foofu dafay am reflex kon information bi nga fay jëlee mooy ne ah neer bi dafa war a ngir réflexe mën a am te soo fàttalee ko li nga jàngoon ca conductibilité kon da ngay xam ne kon saa ñu tegee acide bi dafay am ay influx nerveux yoo xamante ne moom la neer boobu di yóbbu te loolu moom mooy indi réflexe bi kon soo ko daggee rek influx nerveux yooyu dootuñu jàll te kon réflexe du mën a am ñetteel bi léegi jëfandikootuñu acide bi waaye dañu nekk di def ay excitation xam nga soo daggee neer bi dafay am ñaari cat cat bi nga xamante ne moom moo jëm ca biir moom la ñuy wax buu central ak cat bi nga xamante ne moom moo jëm ci cat ya maanaam ca tànk ba catu tànk ba moom la ñuy wax bout périphérique léegi ñaari cat yooyu lañu excité bu ci ne dañoo njëkk excité cat bi nga xamante ne moom moo jëm ca tànk ba maanaam bu périphérique ñu gis ne tànk bi lemu na waaye ba ñu excité cat bi nga xamante ne moom moo jëm ca biir bout central dañuy gis ne tànk bi nga xamante ne moom mooy tànk gauche bi moom neer bi lemuwul waaye beneen tànk ba nekk ca weneen wet ba maanaam tànk droite bi moom moo lemu loolu daf lay andil ñaari information te ñaari information yooyu ñoo ngi sukkandiku ci li nga jàngoon ci conductibilité kon nerf bi di nerf sciatique bi dafay yóbbu et influx nerveux jëmale ko ca catu tànk ba ca biir tànk ba li koy wane mooy bu ñu excité pouls périphérique bi tànk gauche bi nga xam ne moom lañu dagg neeram dafa lemu kon ba ñu excité bu périphérique bi dafa am ay influx nerveux yu jóge foofu dugg ca tànk ba ba tànk bi lemu waaye itam neer boobu dafay yóbbu ay influx jëm ca biir ndaxte bu ñu excité li nga xam ne moom mooy bout central bi beneen tànk bi moo lem kon bu ñu excité dafa am ay influx nerveux yu jaar ci neer bi daal di jàll ci beneen nerf bi nekk ci beneen tànk bi ngir mu lemu te bu ñu gisee anatomie interne de la moelle épinière organisation générale du système nerveux gis nañ ne neer yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci cër yi ñoom dañoo dem daal di takkaloo ak li nga xam ne moom mooy moile épinière bi kon li daf ñuy won ne influx nerveux bi nga xam ne moom moo jóge ci bout centrale bi dafa daw ba ca moelle épinière ba daal di jàll ci beneen neer bi ci tànk droite bi ba tax tànk droite bi daal di lem kon neer bi nga xamante ne moom mooy neer sciatique bi moom mën na yóbbu influx nerveux bi ci sens bi wala mu yóbbu ko ci beneen sens bi gisoon nañu ci structure du nerf ne nerf bi dafa am ay fibre nerveuse yu bari te mën a wuute ci diamètre wala ci réew base mën nañu ute itam ci sens bi nga xamante ne moom la ñuy yóbbu influx nerveux bi loolu moo tax dañuy wax ne cercle sciatique bi nerf mixte la ndaxte dafa am ay fibre yoo xam ne mën nañu yóbbu influx nerveux ci sens bi maanaam jëmale ko ca côté tànk ba am itam ay fibre yoo xam ne mën nañu yóbbu influx nerveux bi ca biir maanaam jëmmale ko mel luy jëm ca moelle épinière bi kon information boobu lañuy gis neer bi foo mu nekk fi ngir réflexe mën a am te foo mu mën a yóbbu influx nerveux ca biir indi itam influx nerveux ci biti juróomeel bi dañoo yàq li nga xam ne moom mooy moelle épinière bi maanaam li nga xam ne moom mooy grenouille bi dañ ko jël daal di ko déméduler maanaam yàq moelle épinière bi may fàttali ni grenouille bi nga xamante ne moom la ñu dagg nerf bi ci tànk gauche bi moom lañu nekk di jëfandikoo te xam nañ ne suñu laalalee acide tànk gauche bi niñ ko gisee woon ci expérience numéro deux du lemu ndaxte dañoo dagg nerf sciatique bi léegi ci grenouille boobu lañu laalal tànk droite bi nga xam ne moo ngi ak nerf sciatique am li nga xam ne moom mooy acide bi waaye lemuwul loolu lu muy wone kon ngir réflexe mën a am ngir lemu bi amoon moelle épinière bi dafa waroon ne waxoon nañ ko sax ci expérience yu njëkk ya ne l épinière bi dafa indispensable pour réflexe mu a am loolu moo tax bañ koy yàkkee taxul li nga xam ne moom mooy der bi moo ngi fi intact taxul euh, nerf sciatique baa ngi foofu intact waaye loolu taxul réflexe amul ndaxte l épinière bi nekku fi juróom benneel bi dañoo bi yoon yàq li nga xam ni moom mooy muscle bi nekk ci mole tànk gauche bi may fàttali ne Grono bi nga xamante ne moom la ñu yor lu ko dalee expérience de moom lañu yor ba léegi te gis nañ ne ci expérience 3 bu ñu excité li nga xamante ne moom mooy cat bi nga xam ne moom mooy bout périphérique nerf bi patte gauche bi dafa lemu léegi ñu defaat la même chose waaye bi yoon dañoo dindi li nga xam ne moom mooy muscle mollet bi maanaam sidit bi nga xamante ne moo ko euh, takkale ci yax bi moom la ñu dagg ba nga xamante ne muscle bi takkatul ci yax bi ba ñu defee excitation di bout périphérique tànk bi lemuwul loolu muy tekki information ban dañ ciy jële mooy ne ngir réflexe mun a am ngir tànk bi mënoon lemu muscle bi warul am benn jafe-jafe kon faaw muscle bi nekk fi ngir réflexe mën a am ndax seetlu nga information yi ñu dajale ci expérience yi ngir réflexe am faaw der bi bañ a am benn jafe-jafe kon maanaam der bi mën a yëg li nga xam ne moom mooy excitation bi kon faw mu am ay récepteur ñu wax récepteur sensoriel ndax ci der bi récepteur sensoriel moo ci ne faw mu am nerf boo xamante ne dafay yóbbu ay influx nerveux jëlee ko foofu ca der fi ñu excité ba ci biir te xam nañ ne neer yi ca moelle épinière bi la ñu jëm kon foofu moelle épinière bi nekk fa faaw itam neer bi indi ay influx nerveux yuy jógee foofu ca moelle épinière bi dellusi ci tànk bi ba pare faaw li nga xamante ne moom mooy muscle bi baña a am benn jafe-jafe ndaxte muscle bi moom mooy jëf li nga xamante ne moom mooy lem bi tànk bi nga xam ne moom mooy lemu jëfu muscle bi la kon léegi mën nga génne benn raisonnement kon ba ñu jëlee acide bi teg ko ca tànk ba li nga xam ne moom mooy ci der bi dafa am ay récepteur sensoriel yu yëg cafaay acide bi loolu daal di tax ay influx nerveux daal di ca juddu influx nerveux yooyu daal topp fibre yi nga xamante ne ñoom ñoo jëmale influx yi ca biir influx yi dem yegg ca moelle épinière ba ca moelle épinière ba yeneen influx joge fa daal di topp fibre yi nga xamante ne ñoom ñooy yóbbu influx nerveux yi ci biti maanaam yóbbu influx nerveux yi ca tànk ba influx nerveux yi daal di ñëw ba ca muscle bi ñu daal di tax muscle bi réagir daal di lem tànk bi kon raisonnement boobu moom nga mën a jëlee ci li nga xam ne mooy information yi ñu jëlee ci expérience bi ngir xam cër bu nekk lu muy doxal ci réflexe bi waaye am na lu leeragul ca moelle épinière bi naka la mbir yi di deme expérience yi di topp ñoo lay woon naka lay demee danga ko xool jàng information ñu la ci jox ba pare daal di ca jàppee dara maanaam benn conclusion conclusion yooyu nag soo ko boolee di nga xam naka la mbir mi di demee ca moelle épinière boobu expérience yi juróom la ñett yu njëkk yi ñoo nekk nii ñaari ci ñoo nekk nii expérience yi moom la ñuy waxe wooyee expérience de Bell imaginé yi kon lan lañu mën a tënk ci information yi ñu jëlee ci expérience bu ne bul fàtte ne ba ñuy jàng anatomie organisation du système nerveux organisation de la moelle épinière dañoo gis ne li nga xam ne moom mooy nerf rachidien yi suñuy takkaloo ak moelle épinière bi dañuy def ñaari car benn bi ñu woowee rasine dorsale wala racine postérieure ak bu ñu woowee racine ventrale wala racine antérieure expérience bu njëkk bi dañoo dagg nerf rachidien bi bañ ko daggee fëpp foo xam ne foofu la nerf rachidien bi jëm amatul benn yëg-yëg waaye itam mënul yëngu loolu la ñuy wax perte de toute sensibilité mënul yëngu mooy paralysie kon ban conclusion lañ ci mën a jële kon li nga xam ne moom mooy nerf rachidien moom moo gérer lépp luy yëngu-yëngu maanaam mouvement ak sensibilité ca zone bi nga xamante ne moom la takkalool loolu dafay wane ne kon ci nerf rachidien bi dafa am ay fibre yoo xam ne ñoom ñooy gérer mouvement bi am ay fibre yoo xam ne ñoom ñooy gérer sensibilité bi kon neer rachidien yi ce sont des nerfs mixtes ñaareel ak ñetteel expérience bi li ñu def mooy dañoo dagg li nga xam ne moom mooy racine antérieure bi wala racine ventrale bañ ko daggee lépp li nga xamante ne moom mooy muscle lu takkaloog nerf boobu dafa paralysé maanaam mënatul yëngu biñ noppee ñu daal di excité li nga xamante ne moom mooy bout périphérique bi maanaam cat bi nga xamante ne moom moo jëm ca nerf rachidien ba ñu daal di gis ne muscle yi dañoo yëngu léegi ñu excité ci ñetteel bi li nga xam ne moom mooy bout central bi maanaam cat bi nga xam ne moom moo dugg ci biir moelle épinière ñu gis ne amul benn yëngu-yëngu kon lan la ñu war a tënk ci information yooyu bi ñu daggee mu am paralysie ci muscle yi nga xamante ne ñoom ñoo takkaloog nerf rachidien bi dañ ci jëlee ne kon fibre yi nga xamante ne ñooy jaar ci nerf rachidien bi te res yëngu-yëngu muscle yi maanaam mobilité des muscles ci racine antérieure bi lay jaar ngir takkaloog moelle épinière bi moo tax buñ ko daggee muscle yi mënatul yëngu excitation bi ñu excité bu périphérique bi maanaam cat bi nga xamante ni moo féetee ca côté nerf rachidien bi ca côté muscle ya yi daal di yëngu day wone ne kon dëgg-dëgg fibre yooyu nga xam ne ñoom ñooy jaar ci rasine antérieure bi dañuy yóbbu influx nerveux bi jëmale ko ca muscle ya maanaam influnéro bi sens bi nga xamante ne ca lay dem côté muscle ya lay moo tax soo excité cat boobu muscle yi mën a yëngu waaye soo excité cat bi féetee ci moelle épinière bi du am benn yëngu-yëngu ci muscle bi loolu day wane ne amul influx nerveux buy jaar noonu influx nerveux bi sens de conduction bi mooy jóge ca moelle épinière bi jaar ci racine antérieure bi ngir mën a dem ca muscle ya ñeenteel bi ak juróomeel bi dañoo dagg li nga xamante ne moom mooy racine postérieure bi wala racine dorsale bi ci saa si bépp cër ci yaram bi nga xam ne nee rachidien boobu laal na ko dootul am benn yëg-yëg maanaam perte de toute sensibilité ci bépp zone boo xamante ne dafa takaloog nerf rachidien boobu ñu dagg racine postérieure bi léegi ñu daal di exciter le bout central maanaam cat bi nga xamante ne moom moo takaloog moelle épinière bi ñu daal di gis ne day am yëg-yëg boo xam ne day ñëw ba pare mu am benn yëngu-yëngu ñu daal di excité ci juróomeel bi li nga xamante ne moom mooy bu périphérique bi foofu amul dara kon lan lañu mën a tënk ci information yooyu dagg bi ñu dagg racine postérieure bi dafa tax ba lépp luy yëg-yëg ci bépp zone boo xam ne dafa takkalook nerf rachidien bi dafa dañ loolu dafay wone ne fibre yi nga xam ne ñoom ñoo gérer sensibilité ci bépp zone bu takkaloog nerf rachidien boobu ci rasine postérieure bi lañuy jaar ngir mën a yegg ca moelle épinière bi kon fibre yi gérer sensibilité bi ci racine postérieure lañuy jaar ngir yéeg ci moelle épinière bi ñu exciter li nga xam ne moom mooy bu central bi maanaam cat bi nga xamante ne moom moo takkal ak épinière bi ñu daal di gis ne sensibilité dafa am ba pare mu am mouvement alors que su suñu excité li nga xamante ne moom mooy bout périphérique bi du am benn réaction du am sensibilité du am mouvement loolu lu muy tekki day wone ne li nga xam ne moom mooy fibre yi gérer sensibilité bi dëgg-dëgg ñoo ngi ci racine postérieur bi waaye day leeral ne kon li nga xam ne moom mooy influx nerveux yi nga xam ne ñoom ñooy jaar ci fibre yooyu dañuy jóge ca nerf ba dal di dugg ci moelle épinière bi loolu mooy sens de conduction yu fibre nerveuse yi nga xam ne ñoom ñoo gérer sensibilité bi waaye itam gis nañ ne dafa am mouvement te ngir mouvement mën a am niñ ko gisee woon ci expérience deux ak trois faaw ay influx nerveux jaaree ci racine antérieure bi ngir mën a dem daa di gérer mobilité muscle bi ndaxte niñ ko gisee woon fibre yi nga xam ne ñoom ñoo gérer mobilité muscle bi ci racine antérieure bi dañuy jaar kon loolu dafay indi confirmation ne influx nerveux yi nga xam ne ñoom ñoo gérer sensibilité bi su suñu yegsee jaare ci fibre nerveuse yi gérer sensibilité bi jaar ci racine postérieure bi dugg ci moelle épinière bi dañuy daal nekkaat ay influx nerveux yoo xam ne dañuy gérer mobilité muscle bi jaare ci racine antérieure bi ngir provoquer li nga xamante ne moom mooy mouvement bi kon soo defee synthèse ci li ñu ci suñu expérience yi mooy ne nerf rachidien ñaari xeetu fibre ñoo ci ne kon nerf mixte la ay fibre yoo xam ne dañuy jëlee influx bi ca biti ca périphérie ba andi ko ba ci biir moelle épinière bi suñu yegsee ca moelle épinière bi ñoom ci racine postérieure bi lañuy jaare muy ay fibres yoo xam ne dañuy gérer li nga xam ne moom mooy sensibilité bi moo tax ñu leen di woowee fibre sensitive ñoom seen influx nerveux day jóge ca périphérie ba daal ñëw ci biir moelle épinière bi moo am yeneen fibre yi nga xam ne ñoom ci racine antérieure bi la ñuy jaare te ñoom ñoo gérer mobilité bi moo tax ñu leen di woowee fibre nerveuse motrice ñoom seen influx nerveux dañ koy jëlee ca moelle épinière bi daal di koy yóbbu ca muscle ya te influx nerveux sensitif yi nga xamante ne ñoom ñooy jaare ci racine postérieure bi mën nañu génnaat su forme d'influx nerveux moteur jaaree ci racine antérieure bi ngir dem def mouvement ca muscle ya léegi suñu boolee lii ak suñu raisonnement bi nga xamante ne moom la ñu defoon ci yeneen expérience yi dañuy nànd bu baax ba mën a leeral naka la réflexe bi demee yan cër ñoo ci laale ak naka la doxe ba ñu laalalee catu tànk mbott bi li nga xam ne moom mooy acide bi kon bu ñu laalalee mbott bi nga xam ne mooy mbott décérébré acide bi ci catu tànk bi récepteur sensoriel yi nga xamante ne ñoo nekk ci der bi ñoo yëg cafu acide bi loolu daldi tax ay influx nerveux daal di judd fibre sensitive yi daal di yóbbu influx nerveux yi ca moelle épinière ba daa di jaare ca racine antérieur bi dugg ci biir moelle épinière bi ca biir moelle épinière bi influx nerveux yooyu nga xam ne ay influx nerveux sensitif lañu daal di nekk ay influx nerveux moteur daa di jaare ca fibre nerveuse motrice yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir racine antérieure bi daal di jaaraat ci nerf bi ñëw ba ci muscle bi daal di provoquer contraction du muscle loolu daal di lem tànk bi kon noonu la influx nerveux bi jaare neewoon nañu suñu benn objectif moo doon mën a def loolu ci schéma schéma boo xam ne dafay wone jaar-jaaru influenceur bi kon schéma bi feeñ na schéma boobu moom la ñuy wooyee arc réflexe arc réflexe mooy jaar-jaaru influx nerveux bi am na neneen itam nu ñu mën a jëmale li nga xamante ne moom mooy jaar-jaaru influx nerveux bi moom la ñuy woowee circuit neuronique maanaam neurones yi nga xamante ne ñoom ñoo laale ci réflexe bi yaa ngi fàttaleeku bi ñuy def expérience de dégénérescence walérienne ngir mun a wax fan la corps cellulaire u fibre yi jaare ci racine ventrale ak ci racine dorsale nekk ñu wone woon ne li nga xamante ne moom mooy fibre yi jaare ci racine dorsale wala racine postérieure seen corps cellulaire moo ngi ci biir ganglion spinale bi alors que fibre yi nga xamante ne ñoom ñoo jaare ci racine ventrale bi seen corps cellulaire moo ngi ci biir moelle épinière bi kon fibre sensitive yi seen corps cellulaire moo ngi ci biir ganglion spinal bi alors que fibre motrice yi seen corps cellulaire moo ngi ci biir moelle épinière bi kon sudee dee nerveux bi dafay jaar ci rasine postérieure bi daadi génnee ci rasine antérieure bi kon dafay wane ne corps cellulaire u fibre motrice yi dañoo am contact ak fibre sensitive yi ba tax ñu leen di jàllale seen influx nerveux sensitif su forme d'influx nerveux moteur kon suñu sukkandikoo ci loolu dañuy mën a jëmmal li nga xamante ne moom la ñuy woowee de circuit neuronique suñu nàndee loolu rek day ñuy mën a faram-fàcce réaction yépp yi nga xamante ne moom la ñu amoon ca suñu expérience la dañuy mën a faram-fàcce naka la mbir yi demee ba ñaari tànk yi di yëngu ba ñu yokk acide bi cafaay acide bi ba yërëm bi yépp yëngu circuit neuronique yooyu yépp mën nañ ko feeñal ndax léegi nànd nañu naka la reflex bi demee naka la arc reflex bi bindoo te circuit neuronique bi naka la demee itam bu boobaa dañuy gis ne dafa am lu ñuy woowee ay interneurones wala neurones d'association yoo xam ne dañuy jokkale neer yi nga xam ne bokkuñu wet neurones yooyu ci biir moelle épinière bi la ñuy nekk ñoom ñooy tax influx nerveux sensitif bi su yegsee ci biir moelle épinière bi su amee yenn doole yi ñoom ñu mun koo jàllale ci beneen wet bi ci fibre nerveuse motrice yu beneen wet bi wala ci fibre nerveuse motrice yi nga xamante ne ñoo ngi féetee kaw suñ ko jàllalee ci beneen wet bi moom la ñuy woowee interneurones horizontaux su ko jàllalee ci kaw moom la ñuy woowee interneurones verticaux loolu mooy waral excitation bi su amee doole ci tànk bi mu mën a jàll ca beneen tànk bi wala mën a jàll itam ca yeneen tànk yi ne ci kaw wala mën a jàll ci yaram bi yëpp ba yaram bi yëpp di yëngu léegi nañu mujjee ci caractéristique des réflexes innés maanaam li nga xam ne moom mooy màndargaal réflexe inné ngir loolu dafa am luñ ci seetlu ci liñ ci seetlu ca ngay sukkandiku ngir mën a génne li nga xam ne moom mooy caractéristique réflexe inné nañu jël benn exemple réflexe teg soloxo ci lu tàng këpp ku teg loxoom ci lu tàng teggi rek ak ku mu mënti doon su dee reflex rek képp ku teg soloxo ci lu tàng teggi rek ci saa si wala këpp koo xam ne nanga dëgg pont tëb rek kon dafay wone ne réflexe yi li koy sabab su amee rek da ciy topp ak nu mu mënti demee li koy sabab su amee rek da ciy topp moo tax ñu naan c'est inéluctable kon réflexe inné c'est inéluctable comme ni nga ko waxee teg sa loxo fu tàng teggi dëgg pont tëb waaye itam ni muy amee espèce bu nekk benn la nit yépp doomu aadama yëpp su tegee loxoom ci fu tàng dina teggi te noonu la mel ci doomu adama yépp noonu la mel itam ci yenn mala yi ci yeneen domaine yoo xam ne mun nañ koo mun nañ koo wax moom la ñuy wax ne c'est spécifique maanaam espèce bu nekk reflex yi nu ñuy feeñee ci espèce bi noonu lay feeñee ci këpp ku bokk ci espèce boobu dinañ seetlu itam ne réflexe yi ni muy feeñee benn la su ma jëlaatee exemple dëgg pont këpp ku dëgg pont di nga tëb wala këpp ku dëgg xal di nga tëb kon tëb la moom la ñuy wax stéréotypé kon les réflexes innés son stéréotypés maanaam ni nga xamante ne noonu la réflexe bi di ame benn la ci kon mën nañu jàpp ñett yooyu maanaam spécifique inéluctable stéréotypé boole ci automatique kon fii la ñuy yem ci étude de réflexes yi gis nañu mise en évidence gis euh, arc réflexe daa di gis itam li nga xamante ne moom mooy caractéristique des réflexes kon euh, beneen yoon dinañu yeggali xaaj bi di étude d'un réflexe inné ak étude d'un réflexe médulaire le point le réflexe rotuléen ak itam diversité des réflexes innés yi nga xamante ne foofu la ñuy classé réflexe inné yi ak ay critères de classement kon xool leen vidéo bi xoolaat ko jéem xalaat ci expérience yi bu leen itam abonné di aimé activité itam cloche de notification ñu def noonu ba beneen